mbàkkee ba tey ñu fas yéene wéyal rek li nga xam ne moo am ci bésu xasaayit bi ñu dalal kenn ci wàllu waaw ci waañ bi nga xamante ne ni moom tamit jëwriñ la ci liggéey bi ñu fas yéene koo dalal sëñ bi maa ngi lay nuyu bu baax waaw may laaj tur bi naka la waaw sëñ Fallou ah, may laaj ba su xasaayitu ren bi ak bésu xasaayitu daaw bi yan jeexantal la def ci wàllum togg gi ak yooyu noonu salaamaaleykum waaw dañuy nuyu mboolam ba pare. jéggalu ci kàddu yi ñuy yëkkati fii. waaw bés bu xasaayit moom boo ko déggee moom daanaka comme son noole comme niñ comme comme niñ ko déggee. ndax xës dama boo ko waxee daanaka lépp a ngi ci biir. jàng alxuraan ak bernde ak. jàng xasida comme ni leen ko waxee nag daaw moom boo gisee bu daaw ak bu ren. waaw alhamdulilah daal instant moom sant nañ yàlla bu baax a baax. ci bés bi. waaw jërëjëf sëñ Fallou tontu yi am na solo waaw sëñ Fallou bëggoon naa xam euh, daaw ñaata mbana laax ngeen togg ak ren ñaata mbana laax ngeen togg. waaw waaw boo gisee daaw. daaw ñu ngi toogoon set mbana laax ren ñu ngi togg neuf mbana kon xam nañ ne kon loolu yokkute la comme ni ñu la ko waxoon sa njëlbéen la mm-hmm. ñu ngi sant bu baax nag waa waa jërëjëf euh, sëñ Fallou waaw bu ñu demee ci wàllum añ bi euh, ginaari daaw yi ak ginaari ren bi en plus tamit mbana yi ñaata euh, mbana ngeen toogoon daaw ci añ bi ak ñaata mbana ngeen toogoon ren ci ci ci li nga xam ne mooy añ bi daaw añ bi daaw ñu ngi togg neuf mbana ren ñu ngi togg treize mbana kon itam ba tey ni ma la koy si laax bi ni laax bi yokkoo noonu la añ bi yokkoo da parce que moom liñ naan yoon sëñ Tuubaa amul tànki ginnaaw tànki kanam la am comme noonu lañ ko gisee rek ndax ginaar yi itam ba tey buñ sa demee ginaar yi daaw ñu ngi reyoon téeméer yu manqué juróom ren yokku na ren ñu ngi rey téeméer téeméeri ginaar kon daal ni ma la ko xee rek tànk sëñ moo amul tànki ginnaaw tànki kanam la am. Ah, waaw jërëjëf Serigne Fallou macha allah tontu yi am na solo trop waaw Serigne Fallou lii mën nañ ne gulet c'est la première fois Bambey am benn chaîne boo xam ne da ñëw caméra la dugalal la ko YouTube direct may laaj yow ban gis-gis nga am ci boobu chaîne. waaw ah, lii xanaa dañuy sant yàlla rek. ndax parce que Bambey moom daanaka war naa raw fii. ndax parce que gars moom dara jomb fi ndax parce que boo xoolee. Mhm. doomi sëñ beeg seeti sëñ bi daanaka Bambey daal boo xoolee ñu bëri si sëñ Touba daanaka fii mooy seen seen seen dallukaay daanaka ay seen ak ay rajo yëpp war na fi am nga xam ne yëpp bokk na si jëmalee liggéey bi doxinu Bambey kanam ndax yii yëpp ñuy def ni am solo xanaa dañuy ñaan mu mu jëm kanam mhm. ba liñ li liñ nam ma liggéey sëñ Tuubaa mhm. mu defal leen ko waa waaw jërëjëf sëñ Fallou ma bëggoon laa laaj ne la euh, doomi Bambey yi nga xam ne ñoo nekk Bambey te chaîne bi nekk seen dëkk yow ñooñu lan nga leen di ban dénkaane nga leen di jox waaw ah, ñooñu de dénkaane bi ma leen jox mooy leen mhm. mooy maanaam nit ki moom li nga am rek nga mën a fonk te lii la première fois ñu gis ko fi xanaa lii moom duñ def dara lu du fonk ko to di ñaan mu yokk waaw waaw jërëjëf Serigne allo macha allah tontu yi am na solo xanaa di ñaan ko tedd ki def la nga nekk magu morit magul islam ba naa li nga xam ne naa la nga ko liggéeyal ko tedd ki suñ borom may la ci nga def ko na nga ko bëggee jërëjëf ko BGM News ñu lay sant bu baax ci di la gërëm